Wow. ngeen jëf. Baye ma Njoon. jërë ngeen jëf. doon na ko si sa gars yi jërëjëf. ay ca xoyantaan moo nekk. ana yéen a xoyantaan. doon na ko si sa gars yi jërëjëf. ay ca xoyantaan. la ñu ne àgg na sa cuuf yàlla benn combat bi moo fi teg nit ñi wér nañ ko ndax moom moom booy gay day wàccam du wàcc ah doole da koy jàpp dëpp na ko dëpp na ko Ada Boy daan nanu ko ay ca wulli ay wulli ci suuf rek ci suuf rek waaw waaw waaw waaw waaw waaw ay ca wuli Akbar cawli cawli waaye ma danga war feeñ Leewtoo TV ak Lutte TV yéen a ngi dundal lambi Sénégal ya yàlla yàlla yëkkati leen waaye ma jox waaye Abu Kongel John Sénégal ya doomi ay Jamaïcain ya waaye Abu Kongel John journaliste yu mag yaa ngi lambaleen ñor cosaan ak aada la béggee Baye Mandione da ngeen ñuy béggeel saa su ne ana loj dañu leen di béggee loj xam ngeen li ngeen di wax teg ngeen ko ci yoon lamb nii la nii laay ku bëre kii daanu loj lamb nii la nii laay ku a ñu namoon jëmee gilee nañu ci sa ginnaaw bés bi rafet na bay ma ñëw nag xoyantaan bay ma ñëw nag xoyantaan lamb ni yow buuri mi des daam gàcce ganama ngeel gi Abdou Samba Njaay galas baay beey Cheikh Fall Pape Njaay lamb sa cosaan cosaan ba tëgg réew Kure bala ka siri na maya Kari anu damfa Kari anu damfa Aija Aija siri ki gel Chowlu chowlu yawla Chowlu chowlu aija siri ki gel Chowlu chowlu yawla Yaba ka sari ki jayu Frontier boy gay Yasifir fana fana Frontier boy gay Yaba ka fana fana yi frontière Boy Gueye seen duñ leen fàtte mais Lamine mention spéciale à Jamaïque parce que xam nga lan moo tax Jamaïque xale la xale boo xam ne seen i Gambia yi tey bu boolee bàyyi ma ñor ñu xam ko bu baax a baax champion du Sénégal jël xoyantaan bi nga xam ne mooy roi des arènes fii ci Gàmbi mu boole yow loolu yaakaar naa Lamine am na loo ci war a wax. non yow bàyyi la nga ma jël baax waaw léegi xam nga lay laaj ana supporteru Baye Mandione ana supporteru Baye Mandione ko ànd ak Baye Mandione ko ànd ak Baye Mandione jam kaay kaay ba nii jam ñëw kaay jam da ngaa ragal yéen waa jam wala yéen waa Sénégal bi ah xale bi ñaanal leen ko yàlla defal ko fan wu gudd ak wér parce que am na ambition def dara Sénégal def waaye nag daa lu ko ñuul loolooy problème bi lu ko ñuul

waaye nag dafa am lu ñu fi nekkal kon maa ngi lay nuyu di la si waat di la di leen si xar Ngor. nuyu na leen Seck borom ne TV. borom Loro borom Loro gis nañu heure bii nga woon ci ku la nekk nga nekk. mais jam mais jam. balaa la dis Mame Amour nan nga fas yéene liggéey ak Xoyantaan ak Baye Mandione ak say combat préliminaire fan nga ci toll. waaw ñoom ñaare samay frère la ñun ñoom ñoo bokk day baax man sama kanam bu ñu xoolee ci man rek lépp war na mën a rafet Xoyantaan Baye Mandione dafa am lu ma ci digoon waa Gambie. dana mën président fédération bi. nga xam ne tey lamb vraiment bàyyi dox ba xam ni moom moo ko feere bu fi amutoon lamb bi demee nii maa ngi koy nuyu muy Serigne Faye ak mbooloo mi yëpp ak journaliste yi fi nekk yëpp pointaan bàyyi ma ma si digal askan wi. loolu lañ ci dugal. ndax Babacar lan moo ak yuuru wulli ak yuuru jàng Gambie wulli ak yuuru jàng Sénégal alors que. waaw li mu ak wulli wulli ak yuuru ay doomu Sénégal àdduna bi moo leen bëgg am naa droit Gambie bëgg ñu bëree su ma bëgg ñu leen si ñu bëree Sénégal bëree Gambie le 10 novembre comme ni nga ko waxee woon diggante Fane Dane ak Fane Ngom wulli ak Liru Gane ci bëre incha allah dina wax ne bii nii ak Balla Gane taxawal na ko dina ñu bëre incha allah maa ngi woon ñëw si joxal ma ko benn micro bi ayca ayca kon loolu a baax. waa ndeysaan gars yi. Babacar xamal luñ leen xamal luñ leen waxal. loolu la ñu wax. maanaam boo sport. waaw su boolewul war a tàqale. ndeysaan yaa ngi dégg. affaire yi daa war rafet. affaire yi na rafet. xoyantaan nii. daa def dara moo tax bàyyi ma doon jël ko. bàyyi ma doon daa def dara. moo tax kontaan jël ko mais nañ koy mettre ci cadre sport bàyyi ma njoon ci Sénégal waaye Gambien yi xam nañ ko xoyantaan tamit champion la ci Gambien waaye sénégalais xam nañ ko kon nag sport la ñu ngi ñaan rek que le xoyantaan ñu bàyyi la ñu daal ñi nga xam ne ñoo fi doon lay. alhamdulilah rabbil alamina alhamdulilah rabbil alamina alhamdulilah rabbil alamina gannaaw bu ñu sant yàlla di ci yonent bi te gërëm suñu maire waaji di gërëm suñu sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye di gërëm suñu sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye di gërëm suñu sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Jim Ndiaye waa ngi nuyu waa ak lamb yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggee lamb rek nga teew fii di wax ne journaliste yeeg promoteur yeeg ñëpp dal leen ak jàmm ci góor gi di wax ne waaw maa ngi bëggee ñëpp daal. tey ñu gis ne mbokku nit ñi yow lañ ko tuddee. nga amoon ay kàddu yoo xam ne yaa ngi ko doon gaaral ak moom fële ca biir réew nga ne damay dalal bàyyi ma ñoom fii si biir bi tey tey li nga xamante moom sa adversaire a ngi dégg moom lu am solo yàgg nañ ko jàpp nag mais tey moom li nga xam ne moom nga ko seetal tey boo amee loo koy ko defalee champion yëpp noonu lañ ma ko defalee léegi da gis ne man dama am pour nekk si réew mi ba leen ko juróomi ñëwaat àndaat ak gars yi ci waaye dama koy wax gars yi dañuy wax ne pour ma dalal ko drone ma dalal ko drone mu ñëw fa def loo xam ne yëfu xale la bu yëfu mag yëfu xale la parce que su nekkee drone mu tumbale way ay def borom loolu yëfu xale la te man damaa fa woon ñu passé na fi mu toll damaa loo xale xale moo ko war a def waru magum jëm man dama ko def moom mu ne ma lii baaxul kon moom su ñëwee di moom mooy kan tooñ na ma a ma ko dem na ba a di ma ne du ma ko gérer parce que xam naa a fi mu jëm loolu du làmb man loolu yëngalu ma ci làmb. yéen ñaar wala mu fekk damay ñëw mbër bàyyi ma ñoom ngay bëri bàyyi ma ñoom ku ne xam na ne ci làmb maanaam jàmbaar la day xeex day bëri est-ce que ngi béy ci loolu. waaw loolu loolu tur bi gàtt la moom waa Kaaf dañ bëre man mbër laa takk naa njàmb jël naa avance njàmb nu may def xanaa du ma génn saako yi ñu kon dinaa xeex dinaa bëre du laaj lépp nekkoon moom su ko dëgalee ñun du ñu yaa ngi foofu. yaa ngi koy gis ñun tey gis nga foofu yaa ngi taxaw ak moom yéen ñaar physiquement kan moo gën a pare actuellement. man gis naa Babou Ndiol nii. Babou Ndiol bu ñu wàccoon fii ma daan ko fi teew. yaa wax lii. billaay bu ñu wàccoon fii ma daan ko fi teew maa ko dàq bëre fuuf. billaay yaa dàq bëre. fuuf. ñaata victoire nga am dàq bëre mag Baye Mandione yal na ko yàlla may ndam. ku dàq xeex yal na ko yàlla may ndam. ku dàq bëre yal na ko yàlla may ndam. kopp doole yal na ko yàlla may ndam kopp fit. yal na ya kopp fit. waaw yal na ko yàlla may ndam. loolu leer na dafa am lu muy doxee lu nekkul. dafa am lu muy doxee lu nekkul. waa ji li nga wax kay leer na nañ. nee na xuyantaan nee na gars yi ku ëpp doole ku dàq xeex ku ëpp fit yal na ko yàlla may ndam xuyantaan a wax waa Gambie ngi waa Sénégal a ngi ma njoon a ngi bàyyi maa ngi lay bëgg waxal point daan nee ma bëre ku dëkk Sénégal damaa jig laaj ma na ñaan ñaan la kan ak kan Gambien laa fa daan benn ma Bébé Saloum laa ñaar ne ma Obama laa fa daan ñett bàyyi ma njoon nag moom mooy kii koy ñeenteel dama koy defaral ah li wax moom xulantaan ma ñeenteel dama koy dama ko ah waaw ñooñu fii. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ku si nekk sa sa sant suñu mbokki Gambien ndax boo gisee ma ñëw tey jii. Sénégal ak Gambie ñoo ñoo bokk bay. mais dégg nga sa waay li mu wax nee na ku dàq bëre kooku doole ku ëpp fit ku dàq xeex yàlla na yàlla may ndam. ku dàq entraînement ëpp doole gën a liggéey ëpp fit yàlla na yàlla may ndam. yow loolu loo wax yow tamit. bokkul ak moom ci dara bokkul. mais du ko ñu mu daan Sénégal laa la wax bokkul bokkul. Gambie ak roi des arènes Sénégal yaa ngi dégg bokkul kii boo ko lekkee lekkat na bële dafa dafa dafa moo masinil da ngay daan maa ngi jox may ñu fecce di nga toog incha Xoyantaan ñu doon koo faal. waaye gars yi ñu doon xoyantaan ñu doon koo faal. ah xoyantaan nee na dañ koo faal. man dama doon faal. ah waaw. voilà donc. ah on a jàppal. dama doon faal. Thank you. loo wax ci moom. non dafa dafa am soo daa am soo benn gel bu ñu niróo quoi moo tax ma faagal. daa am soo benn gel gel bu ñu niróo moo tax ma faagal. mais combat bi mën naa gaaw. ah combat bi mën naa gaaw. ñaari seconde bu taxawee ma dër ko incha allah. deux secondes la mooy ñaar deux secondes. kii bokkul ma am moom. man damaa liggéey damaa travaillé métti métti. ma fàttali bi laa def. looy tàggoo ak looy wax promotion looy tàggoo ak looy wax promotion sant yàlla bu baax rek ñaanal ñëpp jàmm yàlla yaa ngi dégg ah xuy. kontaan taxawal taxawal taxawal. waaw maa ngi gërëm waa Amour yëpp di gërëm Fatou Seye eh, xoyantaan yi eh, bu wér a wér a wér a wér. di gërëm Alimane maire Poos Kobo di gërëm Ousmane Gueye bu ñu sa wax maa ngi gërëm MG bu baax baax di gërëm gars yi jàpp si combat ñoom ci wàllu turam di gërëm ñëpp waaw la comédien def waa kon gaa yi léegi jeex na. gaa yi léegi jeex na. mu àggale li nga xamante ni. gaa yi léegi jeex na. mu àggale li nga xamante ni. foto foto foto joxante leen loxo. buñ fa dëggal ñu àggale li nga xamante ni taxaw ci dëkk bi. voilà jeex na sëñ bi. solo mu ngi ci diggante Thiam. bàyyi baax na bàyyi. diggante ak ki nga xamante ni moom mooy top 5.